naka yitte yi amul solo. da nga ñëw ma doon dugg ci toilette yi yeesloo ak yooyu. wax nga dëgg njaay njaay njaay mën na nga rafet coono. ñooy sant alhamdulilah sant yàlla alhamdulilah njaay su ma ko waxee sonn naa su ma ko waxul sonn naa te man yàlla dafa dogal sama objectif nekkul di wax ak ay dof. mais ñànku fatt na ma dar na ma dama wax ba mënatuma wax pexe mu ne def naa ko mënumaa am jàmm ma ne naa ñëw ci yow mi nga xam ne yaa ma may jabar nga wax ak moom bis bu yàlla sàkk mu kar ma jox ma sama jabar grâce waaw ndegam man mii nga xam ni séyuma maa sonn maa sama ak yow mi nga xam ne yaa denc sa soxna ñànku di la fa fekk ñànku ci boppam mooy sama nattu sonn nga xam naa ko njaay ndax divorce bi bi mu amee ci diggante ñànku ak sa soxna yàgg na dégg li leen jotale àdduna yépp xam nañu ko séyatunu bu loolu waaye nit a koy xam ñànku xel mi matul dafa dul nit te yàlla du ko xiir ci ci soxna si Kina As def nga lu ne matul def naa lu ne matul wutal gardien ah kay wutal gardien bàyyi ko sa buntu kër. Hmm. jox ko ay directive wan ko ñànk ba mu xam ko nga ni ko bu bu gardien bi bu bu ñëwatee bu mu dugg loolooy solution bi ah mënoo téye ñànku mënuma koo téye daf ñuy rey. waaw ah, loolu dëgg te bu ñu reyee dañuy perte te du dugg kaso dafa dof man léeg-léeg mu ërtël ma ërtël koo xam ne ci biir ci ci biir kër gi damay delloo avance. kon yaa ngi ñam. bu baax damay delloo avance rek wala ma naxasaale dugg sama biir ne tëj. li nga ci xalaat. dinaa ko ci def dinaa wut gardien teg. mais tamit balaa ma ko doon def il faut ma ñëw wax ak yow paxam yëg nga mën nga ci dara wala mënoo mais comme mënoo mënuma wutal gardien bu boo xam ni du caaxaan kanam nga gennu caaxaan newu ca wutal gardien buy duma amul problème di dóor amul problème nga wan ko ñànku nga wax ko li ñànku di def waaw amul problème dinaa ñaar xës na ñoo ñeme ba pare mu mu mu mënatu noo ragal. ah Guèye am na noo doon dëgërloo nii. ah mënuma ko nag mënuma ko de. mënoo ko. déedéet mënuma ko de yow xanaa nga jéem a dëgërlu rek yow mi nga ah, xam yaa moom sa yëf. Ah, yow yaa yow yaay sëylu di. ah man maay sëy mais yow yaa ko sëyloo. kuy sëy. kay nag eh wuy ma yaa sëyloo. kuy sëy. maay sëy. ah delloo si kon. moo ko delloo foo jëm mbaa duñu gaapal sa doom ji. ah mbaa yow doo ñàkkit. sëy naa keemu dof. ma dugg ci mënatuma am jàmm. waaw delloo rek ba xam ñu koy négocier. yow moom sa alal maa ngi ñëw dem li nga wax dinaa ko bàyyi xel. waaw butal gardien rek. jërëjëf waaw jërëjëf. Ah, aaroo ko naan ma engagé ñan ko yow engagé ko yow. waxtu ñàkk fulla ak mën a tay la nit